élection locale yi bu mu paree président Macky Sall ak gouvernement xam na ne Yewwi Askan Wi gagné na élection yi gagné na ko ndax boo xoolee élection yi ci 46 départements yi nga xam ne ni moom la Sénégal am ci 30 départements la ñu bokk ci jogante bi te loolu li wone mooy Yewwi Askan Wi gagné na dëkk yu mag yëpp parce que ku gagné Dakar gagné Guédiawaye gagné Thiès gagné Rufisque maanaam benn dëkk bu ñuy tudd ville lañu ñu te bokkuñu fa woon mooy Pikine te buñ fa bokkoon di dañ koy gagné kon nag mën nañu wax ne yeewi askan wi jël na réew mi sénégalais yi jox nañ bopp yeewi askan wi sénégalais yi wóolu nañu yeewi askan wi sénégalais yi yaakaar nañu yeewi askan wi parce que sénégalais yi dañoo namm leen yeewi sénégalais yi dañoo sonn ci saretu jinne bi ñu dugg